gis nga dafa euh, am li ñuy wax ah ak politique c'est la même y a opposant y la vérité opposant du gis du gis lu état baax lu mu def benn opposant du gis lu rafet opposant dugis lool du wax lool parce que opposant la man su ma jëlee nguur sax dama fekkee ni Fapal boo neexee ba mu dugal ba sama ndey nga xool fa nekk man tëri sama réew nii la nii lay dundee billaahi wallaahi tallaahi benn président moo mos a recevoir ba mu jox ma temps benn président mos ko def ba muy Ablaye Wade mi ma njëkkoon nekkal ba nga yaan sax dama doon jox muy Macky Sall bokk moo la ko tey nga dégg bokk ñu bëri nag ñoom boo défendre boo ko dëgg ñu ni voilà ni muy opposé wu mais nit ki bu defee lu baax da nga yem moom woote na jog waaye ñu bëri temps bi nan wàcc ñu bëri temps bi mais lu baax la na ko def nan wàcce si le terrain ñu ànd ak moom ñu bëri temps bi ñu job ku mën a job nga bu amee leneen ñu wax ko bu dëkk na ñu wax ko nan waxante dëgg loolu mooy joxoon réew opposant du gis nag lu lu guerre opposant ba pare opposant yi nga si ne ay tapé la ñii ay ragal la bokk dëgg mooy ñii ñoom ragal la Idrissa Seck wax na wax muy jaay te même chose ñu ay ragal lañu parce que opposant boo xam doo taal pneu yow doo génn doo taal doo xeex doo def da lu nekk fii di rek da ngay def mais comme PDS ni doon raage PDS ni doon raage nii xëpp si teg seen bakkan ñoo ñooy le vrai opposant mais tapé yi bokk yi ñii ñii Sonko yi fa ragal lay def na appliqué ñu na appliqué waa moom lu mu waxoon Sonko du topp xool benn xool ki waaw euh, benn waa politicien wax tey mu ngi ko langal ko Abdoulaye Wade la ko langal islam ne lapp waa le vieux nanu bàyyi paa bi mu noppalu ngir yàlla ñoom ay jeunes nan dem ngeen liggéey ngeen ba paa bi bàyyi leen le président Abdoulaye Wade jaanam wàcc na maa ngi koy sali di ko sali dix mille fois sali je répète beaucoup moom président Abdoulaye Wade ma ngi koy nuyu dama ko gëm li muy def def na ko li muy liggéey bàyyi leen Abdoulaye Wade mu dem toog toogam ngeen dem yéen en tant que jeune vous êtes des dem na ngeen ngeen yaakaar benn papaam cent ans ngeen yaakaar bu bëgg ko bëgg ko rey si kaw tali bi Macky si tam dam leen ngeen jom dam leen ngeen póote yi Macky Sall seen morom la dam leen moo ngoon si yéen ngeen bàyyi nit ñi ngeen sàkkatoo chaque jour bu grève chaque jour marche mais on a marre de ça ñu ngi si 2020 tout va changer bientôt par force parce que nit ñi tam nit ñi ñoo sonn si yii grève marche tal pono reyante te yow kenn joxale si dara ma jàpp si kaso bi yaa si dee mën na la ko fa la loi c'est pour les pauvres na baadoo yoo xam seen bopp nan dem joob yi te gëm yàlla ko nan dem liggéey nan dem liggéey te bàyyi politicien di xaar nag suñu élection jot man loolu laay xaar man Cheikh Ba mu koy nuy du nuyu Bamba Fall ñoom laa nekkal maintenant te lu ma def nu jàppale ma si mais kon am droit lu ñu xool di leen félicité ñoom nag bu nekkee ay seetaan yi man ñu wala du ma remercier ñooñu ñoom ñooy ñoom ñooy dëmm yi ñoom seen bopp ñoom ñoom ñoom ñi leen jàppale xaw ma ay góor jigéen ñoo leen jàppale ñoom ay góor jigéen man ay sénégalais baadoola sénégalais ñoo may jàppale mais ñoom ay góor jigéen ñuy dingat lii may problème ñoom ay góor jigéen ñoo nekk ay rapport yi moo tax ma ñoom sax ay góor jigéen lañu ba nga may way foog nday rapport yi nga may rapport yi man liggéey tan nday rapport yi est-ce ñoo leen di jàppale ñoom seen bopp te si jàkkaarloo man man di wax a man muy muy sur le débat muy sur l'interview di wax a man di nga dégg li ma lay wax man mbax man du ma ragal te xam naa li may def dëggu naa trop parce que awur maa mu si kàlla fi tas nit day dëggu te yàlla moo tax <coughs> waaw histoire jël mooy yàlla daf ma natoo yàlla daf ma natoo ma am problème bu 2002 2015 bi dugg 100 mètres nekk fu ñuy wax chambre 10 tu vois nekk ak xooxu nekk ak benn waaye boo xam ne moo nekkoon soro chambre mu tudd Mangone ma dend ak euh, chambre neuf ma dem nekkoon foofu moo tamit soro euh, chambre gars yi jàllale ma ñoom sénégalais yi policiers yi ñoo ma jàpp jàllale ma kaso waxasi si télé yëpp yàq sama des dëkk yëpp moo tax loo gis rek natu boo gis rek xàcc waay la quoi bi mu duggee nag jël maa nag man def ma seen ambassadeur ma gën wax nekk si kaso bi di ko wax di ko wax ba ku ne am si leçon ba ku ne te yaa ngi si tey nag yaay ambassadeur détenu yi yaay kaasa jelmaan yi da ngay duul da ngay fen billaahi te bu xam ne ñoom dañuy duul ay tekkatu dil lanu def nu loolu ñu ngi fii si réew mi en pagaille ñii ñenn ñi wax ba am place léegi ba léegi nee na ne ay journaliste lañu pour ne la ngir yàlla jaaykatu gerte bàyyi ko dem jaay gerte jaaykatu banaana bi dem jaay banaanam jaaykatu mango dem jaay mango mais dañuy fen ba jël liggéeyu jàpp kenn bu ko enquêté di duul di wër di fen di duul sama message si kaso bi mooy nañu toj kaso bi 100 mètres nañu ko toj yi y' a 37 prisons dans ce pays nan nañu toj ba pare kaso bi waaw kaso bi daa fees dell dell dell léegi tëdd sax amatu biir 100 mètres te nekkul rëbës sek moo nekk fii mais am na dixième mais dixième mu ngi kees Irandaw Irandaw mii nii nekk seen TV moom mu ngi woon waaw mu ngi woon dixième wata wata am na fa nekk ñu xam na loolu ñu bëri ñoom am nañ si kaso yi nekk mais la ma tax ñoom ñoo doon sax di plaider kaso yi parce que jaana ba am fa nekk ñun kaso amuñu fa nekk ñoom ñoo fa am nekk ay kilifa lañu ñoom ñoo doon jàppale waa kaso yi te yàlla moo tax nan toj kaso bi nan teg ni ngi si yoon nan jox ko ne citoyen sa alal te yàlla moo tax 100 mètres amatul tëdd lu dul paqueté rëbës daa fees dell ñu ngi dugal rek yamba nga tëj saqat nga tëj pomuteer nga tëj ganaar nga différé te même néeg même façon ku sàcc yi ku sàcc ganaar ku rey nit même benn néeg bàyyi nan bàyyi suñu xel tamit quoi oui te Guantanamo sax moo tane bu jéelu kaso bi moo tax état bi bëggoon naa ñu ànd def benn documentaire ci prison yi ñu wane image bi quoi man maa leen di posé lii ngir yàlla ñu def ko yàgg naa ko wax na ko ñu def benn documentaire si prison yi ñu wane parce que bu demee bu demee xool ay kaaw bu nii mais dañuy xool jël si si tele yi mais ay Guantanamo dañuy gis ñu wan la fi ñu ay vidéo ñu wan la jëlmaan yi ñu wan la cour bi ñu wan la piste ñu wan la leneen ak leneen mais fii duñu la wan dara parce que amul réalité benn comprimé muy pressa bu feebaree moo lay faj boo palee moo lay faj sa tànk bu demee pressa mort boo sibiroo pressa mort sa biir bu doyee lu la jot pressa mort lu la jot benn kereb moo lay faj kon kon respecté wu ñu xool prisonniers ba pare garde pénitentiaire ñoom pour ñoom ñoom ay ñoom ay magistrat ba pare les prisonniers ñoom ñooy les avocats ratés les parce que ñoom ñoo xam nekk si kaso bi essaye mm-hmm. waaw balaa weeru koor gi moom weer balaa weeru koor di dinaa lancer affaire yi incha allah te di nga gis tamit liggéey bi may wax rek Sénégal yi quoi yes ten thousand maatala from laaxira waay